أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi ak yéen ba tey ci suratul baqara di tàmbalee tey aaye 144 ba aaye 147 mu nekk ñeenti aaya yoo xam ne li ñu ëmb ñoom ñeenti aaya yooyu borom bi tabaraka wa taala mi ngi ciy jàngal di ñu leeralal di ñu won ne war gi nga xam ne war na ko istiqbaalul qibla fi salaati wa fi ay makaanin kaana almusalli alayhi an yattajiha ila jihati makka ñeenti aaya yi dina bokk liñ ciy jële mooy war gi nga xam ne dina ko war jublu penku suñ nee xibla nañ bàyyiloo xel mbokki jullit yi ne xibla mooy jublu penku mooy jublu ci kaaba gi ci makkatal mukarram loolu nag dina war ci ki nga xam ne day julli mu jublu xibla mooy mu jublu ci kaaba gi place bu mu mën a nekk moom moomu jullit boobu di julli dina nekk warugar ci moom fu mu mën a nekk ci àddina bi mu jublu xibla mooy mu jublu ci kaaba gi loolu dinañ ko jàng ci aaya yi nekk sunu kanam ñaareel bi mooy kufru kasirin min ahlil kitab kéeféer gi nga xam ne ñi ñoñu téere ñi yàlla joxoon téere yi muy yahud ak nasaraan weddi gi nga xam ne weddi nañ ko yàlla tabaraka wa taala weddi ko muhammad weddi ko lislaam te loolu kat kaana ala ilmin ñooñu bañ koy def nekk ñu ñu réer de ci xam-xam lañ ko teg dañoo am xam-xam bu wér bu ñu xam yàlla xam islaam xam yonent yàlla muhammad ba pare daal di koy weddi kaana ala ilmin lu ko waral nag mooy isaaran li dunia alal axira ndax gënal gi ñu gënal àdduna ci kaw alaxira loolu moo tax ñu weddi ñu weddi yàlla loolu moo tax ñu weddi lislaam àdduna moo leen gënal alaxira loolu même bu dee ab jullit su ko àdduna gënalee alaxira rek boo moytuwul mu dugg ci kufru rawatina nag ahlul kitaab àdduna moo leen gënal alaxira moo tax loolu dugal leen ci kéeféer dugal leen ci weddi yàlla tabaraka wa taala ñetteel mooy xurmatu muwaafaqatu almuslimin ahlul kitab ala bidaihim ala bidaatin min bidaihim addiiniya mahma kaanat dinañ jàng ci aaya yi nekk sunu kanam araam gi nga xam ne dina ko araam jullit d'accord wala mu dëppoo ak ahlul kitaab lenn ci seeni bidaa bidaa yoo xam ne ci seeni bidaa wu àdduna la wala seeni bidaa wu diine lu mu mën a doon ab jullit warul d'accord ak ahlul kitaab lenn ci mbir yoo xam ne l'islam d'accordu ci ab jullit waru cee d'accord ak lu mu mën a doon mahma kaanat ak lu mu mën a doon bidaa boo xam ne ahlul kitaab ñoo ko indi ab jullit jël ko bu ko dugal ci diine l'islam loolu moom daf xaram tamaaman ak mbir mi lu mu mun a laaj lépp jullit ñi nañu xam ne diine yi ahlul kitaab lépp lu islam d'accordul ci seen diine ñun waruñu cee d'accord jël di ko négocier jël ko di ko dugal suñu diine loolu daf xaram ñeenteel mooy alal ulama yi ahlul kitaab ulama u ahlul kitaab al muasirun linnabi sal allahu alayhi wa sallam yaarifuuna anna annabi almubashir bihi wa annahu annabi alxaatam wa a'radu anil imani wa an mutaba'atihi isaran lid dunya anil akhirah borom xam-xam yi nga xam ne dañoo bokk ci ahlul kitab bokkoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamono yonent bi di dund ñuy dund ñu dégg ko gis ko wala ñu dégg ko bañ koo gis wala ñu gis ko dégg ko ñoo ñépp xam nañ yonent sallallahu alayhi wa sallam ni ñu xame seen bopp ni ñu xame seen doom lu tax ndax jàngoon nañ ci téere yu njëkk ya ñu xam melokaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu leer nañ nañ ne yonent bi mooy yonent bi mujj waaye dañ koo dummóoyu dañ koo dummóoyu lànk bañ koo gëm lu tax ndax mbiri àddina ndax poñetu àdduna jàngeen ci alxuraan Isa bala muy dem wax na leen ab yonent bu tudd Ahmed mi ngi ñëw Moussa bala muy dem bégle na ci amul benn yonent bu yàlla mësa yónni mu ñëw mission bay jeexal lu dul wax na leen ku tudd Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ñëw bu ñëwee na ngeen ko gëm moo tax ahlul kitaab yi bokkoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamono xam nañ yonent bi bu baax dañ koo weddi ndax mbirum àdduna rek àdduna moo tax ñu weddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ci gàttal bu ñu tënkee jubluwaayu aaya yi te mooy maa yustafaadu min al ayat li ñuy jëlee ci aaya yi mooy ñeenti mbir yooyu la bu ñëwee ci nas bi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك سطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم سطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل أما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلة بعد ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك ولا تكونن من الممترين يقول جل وعلا بور سبحانه وتعالى مني قد تدق دق نرى نيجي جيس نيجي لي جيس يو محمد صلى الله عليه وآله وسلم تقلب ngay wëlbëti turaddiduhu ngay wëlbëti sa xar kanam gi ngay wëlbëti wajahaka wajhika sa xar kanam fi sama ci asamaan borom bi subhanahu wa taala nee na yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay gis ngay wëlbati sa xar kanam di xool asamaan di delluwaat xool suuf xool ndeyjoor xool càmmoñ delluwaat ba ci kaw asamaan lu ko waral ngir bëgg yàlla subhanahu wa taala defal la mbir wëlbati la ci xibla gi nga xam ne foofu ngay julli foofu nga daan julli di fa jublu te gërëmoo ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boroom xam-xam yi nee nañ jublu na masjidul aqsa juróom-ñaari weer yoo xam ne bàyyi na kaaba gi di jublu masjidul aqsa juróom-ñaari weer waaye xadisu barra nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli nañu ak moom sittata ashur juróom benn weer bil madina moom sitta la wax sittata ashur juróom benn weer la ànd ak yonent bi saa salaam moom ñoom ak sahaaba yi ñuy julli naxwa baytil maqdis di jublu baytil maqdis kon diggante juróom benn weer ak juróom ñaari weer la ñu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la jublu baytil maqdis loolu nag boroom xam-xam yi nee nañ ndax wax yu la woon yàlla moo ko wax yu ne ko bàyyil màkk jublul baytul maqdis wala ijtihaad la woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye kaana ijtihaaduhu moom moo ko defoon rek góorgóorlu la woon bu mu góorgóorlu pour moom bu bàyyeekoo ci moom mu bàyyi woon màkk jublu baytil maqdis après yàlla wëlbatiwaat ko delloowaat ko makkatal mukarram moo tax ba mu ko doon def mi ngi koy def di jubal xar kanamam kaw asamaan di bëgg allah subhanahu wa taala wàcceel ko mbir mu mu bëgg moo tax mu ne ko xat ca dëgg-dëgg naraa gis nañu taqalluba ngay jublu wajahaka wija wajhika sa xar kanam fi samaa'i ci asamaan falan walliyannaka yàlla nee na ko dinaa la wëlbati dinaa la jubal qiblatan ci qibla goo xam ne tardaaha moom nga gërëm mooy màkk dinaa la bàyyiloo baytil maqdis jubloo la kaaba ga te mooy makkatal mukarram néeg bi nga xam ne malaaka yi ñoo ko tabaxoon après adam après baay ibrahim ba mu yegsi ci moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nekk qibla pour jullit yi yàlla ne ko falan walliyannaka dinañ la wëlbati ila qiblatin allati tuhibbuha wa hiya alkaaba dinaa la wëlbati jële la ci jubluwaay bi nga xam ne yaa ngi fa doon jublu te gërëmoo ko ma yóbbu la ci jubluwaay boo xam ne mooy jubluwaay bi nga bëgg muy kaaba gi bi yàlla gërëm xam ngeen ne yahud yi ak nasaraan yi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi daan jublu baytul maqdis bi mu fa jubloo juróom benni weer yooyu nga dégg gaay naan ñun daal dañu jaaxle ñun de jaaxle nañ waa ji d'accordul ci sunu diine ba pare di jublu ci sunu mbir xam ngeen ne loolu xel sax nanguwu ko mbir mi mënoo cee d'accord ba pare li waa ji di wax lekkuma ci yàpp bi bëgg naan ci ñeex mi daanaka benn la rek ku lekkul ci yàpp bi naan ci ñeex mi ñeex mi lan moo tax mu nekk ñeex du yàpp bi waaw léegi ñu ne waaw moom d'accordul ci sunu diine di jublu sunu dëkk di jublu sunu xibla loolu ja loolu jaaxal nañu moo tax yàlla subhanahu wa taala daal di koy tourné jële ko masjidul aqsa muy Jérusalem daal di koy yóbbu ci kaaba gi muy makkatal mukarram mu ne ko falan walli yan naka dinañ la wëlbati yóbbu la ci qiblatan qibla goo xam ne tardaaha moom nga gërëm ci qibla boobu moom nga kontaan moom nga d'accord te wayal kaaba te mooy kaaba gi yàlla tuba subhanahu wa taala ne ko fa walli wajahaka na nga jubal sa xar kanam sataral masjidil haram ci jublukaayu kaaba gi xawwil wajahaka tourneel sa xar kanam gi soppi ko jële ko masjidul aqsa yóbbu ko ilaal masjidil haram jihatal masjid al haram bi makka na nga jële sa kanam gi fi nga ko daan jubal te mooy Jérusalem nga nga koy jubal léegi dee maintenant foo mën a nekkati fa walli jubalal wajahaka sa xar kanam gi satra mooy wet jëmukaay jubluwaay masjidil haram jàkka jooju nga xam ne araamal nañ ku fa tuur deret man daxalahu kaana aaminan ku fa dugg am nga sécurité kenn du fa tuur deret ak lu mu mën a doon nit rab lu mu mën a doon lu fa mën a dugg kenn du ko laal moo tax ñu tuddee ko masjidul haram jàkka ji nga xam ne araam na ñu tuur fa deret ndax xorma bi ko yàlla jox subhanahu wa taala kenn du fa rey dara est-ce que ginax am na ko kenn du fa rey dara da jàkka yi ku fa dugg rek yaa ngi ci kóolute yaa ngi ci sécurité man daxalahu kaana aminan ku fa dugg am nga kóolute kenn du fa rey dara soo fa reyee soo juumee sax ci njuumte nga rey fa dara da ngay def sacrifice loolu nga rey ni mu toll moom ngay dem jënd daal di koy saraxe moo tax jàkk ji yàlla daf ko xormaal mu ne ko waxay suma kuntum fu ngeen mën a nekk gis nga kan lañ doon wax sànq kan la aaya yi doon waxal yonte yàlla muhammad léegi nag jullit yi dugg nañ ci wa haysuma kuntum fu ngeen mën a ne fa wallu jubal leen wujuhakum seen xar kanami satrahu jubluwaayu kaaba gi moo tax ñun ku nekk ci biir kaaba gi lan lañ la sant ci biir jàkka ji ku fa nekk lan lañ la sant muy nga jub direct ci kaaba gi ku nekk ci biir dëkk bi ñu ngi la wax nga jublu ci ci jàkka ji ku nekk ci biti ñu ngi la wax comme ñun ñu ngi la wax nga jublu dëkk ba déglu li ma wax de kan lañu sant 100 pour cent mu jublu ci kaaba gi ki nekk ci biir jàkk bi ki fa nekkul nekk ci dëkk bi jàkk ji lañ ko wax mu diir fi mu nekk fi mu nekk mu jublu foofu ki nga xam ne nag nekkul ci dëkk ba nekkul ci biir jàkk ji moom lan lañ ko wax mooy mu diir dëkk bi fi Makka nekk nga jublu noonu fii la nga jublu noonu satrahu ci wetam loolu mooy satra ki nekk ki ñu exiger nag mu jublu ci kaaba gi direct mooy ki nekk ci biir jàkka ji kooku laa budda mu jublu ci kaaba gi soo nekk ci biir jumaa ji jubluwoo ci kaaba gi sa julli baaxul amoo julli loolu moo tax nit ñi jubluwuñu penku waaye kaaba gi la ñuy julle quatre koñ yi ñeenti koñ yi dañ koy wër foo ci nekk côté bi nga nekk nga jublu côté boobu waaw bu ñu nekkee ci biir jàkka ji kaaba gi mooy nekk ci digg bi ñëpp wër ko kat koñ la ci biir dëkk bi jàkka ji ngay dàkk fii la jumaa ji nekk foofu ngay jublu ci biti dëkk ba ngay dàkk ci dëkk bi nekk nga dàkk foofu ndax day difficile tey ñun Sénégal ñu ne dañuy jublu ci kaaba gi direct day metti ci ñun li ñuy dimbali mooy busol yooyu nga xam ne mi ngi ci sijaada yi di ñu won xibla bi ne nii la nu mu orienté woo jubal ñu daal di jubal noonu waaye li ci doy waar mooy di nga gis tey ci sunu dëkk yi ci biir dëkk bi xibla yu baree baree baree baree bari te te sorante wuñ te dalay leer ne am na ci yoo xam ne moom jubluwul ci kaaba gi waaw loolu yëpp li ko waral mooy ñàkk góorgóorlu yittewoo mbirum jublu ci kaaba gi te xam-xam xam-xam indi na jàngale na wone na ne am na mbir yoo xam ne buñ ko jublu buñ ko utiliser dinañu jubal ci kaaba gi fi mu nekk waaw xam-xam indi na loolu tey te araamul benn yoon pour ñu war koo utiliser araamul benn yoon pour ñu jëfandikoo ko kon li fi nekk mooy yaccaaral rek ak sàggante boo xam ne tey dal na jullit ñi ba nga xam ne mbir yooyu yitteelu leen waaye lu mën a nekk la ba ci ay sijaada sax yoo xam dañ koy jullee da ngay gis sijaada yi ñu def ci ay busol yoo xamante ne tey boo buree boo bëggee julli mu orienté la kaaba gi fi mu nekk côté kaaba gi nga daal di jublu noonu yow moom du fal force yow 100 pour cent nga jublu ci kaaba gi déedéet waaye ki nga xam ne mi ngi ci biir jumaa ji jàkkaarloo ak kaaba gi ah kooku fal force mu jublu ci kaaba gi su ko jubluwul julleem yàqu julli amul julli yàlla mu ne wa haysuma kuntum fu ngeen mën a ne fa wallu jubal leen wujuhakum seeni xar kanam satrahu ci peggu kaaba gi ixtalafa fi awali salaatin sallaha rasul sallallahu alayhi wa sallam wal muminuuna ila al kaaba boroom xam-xam yi wuute nañ ana ban julli la yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam njëkk a julli jubli ci kaaba gi boroom xam-xam yi wuute nañ ci fa qila al zuhr wa qila al asr ñenn ñi nee nañ tàkkusaan la ñenn ñi nee nañ tisbaar la ñaari wax yooyu nag amu ci benn boo xamante ne boroom xam-xam yi lëngal nañ ko ne bii moo ëpp doole waaye am na ñu ne wa qila kaanat salaatu zuhri am na ñu ne jullit tisbaar la woon fi masjidi bani salama al maaruf bi masjidi qiblatayni nee na boroom xam-xam bi nee na li wér te moom mu d'accord ci mooy julli tisbaar la woon ci jàkka bani salama bi nga xam ne xamee nañ ko mooy masjidu qiblatayni ma jàkka ji nga xam ne ñaari qibla la jàkka ji nga xam ne ñaari qibla la am boo fa demee da ngay gis ñaari qibla yépp qibla bi nekk nii qibla bi nekk nii nga gis ñu ne yonent bi saa salaam fii la jublu woon daal di julli jublu nii ñu won la ko ñaari xibla yi comme ni mu amee nii ñaari minbar yi noonu la jàkka ji amee ñaari minbar bi nee na xata sallu baadu salaati ila bayt almaqdis wa baaduha ila alkaaba fa sumiya bi zalika masjidu qiblatayni nee na ñaari ràkka la yonent bi saa salaam def jublu masjidul aqsa après yeneen ñaar raaka yi mu daal di koy eggali daal di koy mottali ci kaaba gi ñu daal di tuddee jàkk ji jàkk ji nga xam ne mooy ñaari qibla borom bi ne wa inna lezina ñeel na ñi nga xam ne uutul kitaaba wa inna lezina naka ñi nga xam ne uutul kitaaba joxoon nañ leen ay téere wàcce woon nañ ay téere ci ñoom te mooy yahud ak nasaraan la yaalamuna danañu xam ne annahu lii nga def yow muhammad te mooy tourné jóge ca masjidul aqsa ñëw masjidul haram loolu alxaqu mooy dëgg min rabbihim te mi ngi bàyyeekoo ci seen borom sikki sàkka benn du ci am ne lii nga def dëgg la tahawulul qibla jaa man suusan alayhi fil kitaabi saabi loolu sax ñoom jàngoon nañ ko ci seen téere yu njëkk ne yàlla dina yónni ab yonent yonent boobu bu ñëwee dana jublu seen côté jàkka waaye ay fan allah subhanahu wa taala dina ko soppi mu daal di jublu masjidul masjidul haram assatru lugatan annis wa minhu lhadis attuhuru satru liman mu ne satr bi ngeen di dégg ñu naan wàll wala lenn mooy genn wàll rek comme niñ ko waxee ci luxa mooy annis mooy genn wàll njaag ngeen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na attahur satrul iman set laab mooy genn wàllu ngëm kon yahud yi muy ahlul kitaab yahud ak nasaraan leer na ci seen bopp ne lii yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam def te mooy jóge masjidul aqsa dem masjidul haram annawul haq loolu mooy dëgg te jullit moom lan la war a def mooy topp dëgg dëgg rek moo la intéressé dëgg moo tax nga jóg maadaama loolu mooy dëgg nag dëgg gi yow bul ci yox yoxi alxaqu min rabbik fala takunanna min almumtadin dëgg sa borom moo ko moom bul nekk di sikki sàkk la yàlla mu ne ñoom danañ xam annahu li alxaqu mooy dëgg min rabbihim mu bàyyeekoo ci seen borom borom bi subhanahu wa taala nee na wama allahu yàlla nekkul bi gaafilin di sàggane amma yaamaluuna la ñuy def aaya yu mel nii boroom xam-xam bu mag bi dafay wax ne bu ngeen di jàng aaya yi na ngeen bàyyi xel aaya yi fu muy jeexee bu ngeen di jàng alquran bàyyi leen xel aaya yi fu ñuy jeexee aaya bi gis ngeen yàlla nee na wama allahu bi gaafilin amma yaamaluun na ngeen bàyyi xel ne li ngeen di def la ñuy def ñoom allah subhanahu wa taala nee na kenn sàgganewu ko ñu ngi koy enregistré jàng ngeen ci alquran jëfi doomu aadama yi yàlla subhanahu wa taala wax na ahsaahu llahu wa nasuhu yàlla enregistré na ko bind na ko waaye nit ñi fàtte nañ ko waaw di nga def benn bàkkaar wala nga def benn tiyaaba yàlla enregistré na ko yow fàtte nga ko ba yowmal xiyaam ñu génneel la ko nag ne la xoolal li nga defoon bu dee lu baax la bu dee lu bon yàlla sàgganewul kenn ci ñun wala kenn ci mbindeef yi jëf yi ngay def loolu moo tax lépp loo jëf bu yeboo nga jëf lu ñu xam subhaanahu wa taala sunu borom mu ne wala in atayta wallahi maa ngi giñ ne soo leen indilee ñan allazina ñi nga xam ne uutul kitaaba ñoom la ñu joxoon ay téere muy yahud ak nasaraan bi kulli aayatin ci bépp kéemtaan maa tabi'u qiblataka du ñu topp sa xibla mukk preuve boo mën a indi lay woo mën a indi yow muhammad loo mën a leeral aaya xujjatun wa burhan preuve boo mën a indi na nga yëg ne yahud ak nasaraan du ñu topp sa xibla maanaam li yàlla wax mooy dëgg gis ngeen semaine bi bi ouverture école yéegi léegi lan ngeen dégg chrétiens yi di wax naan bépp jullit bu kaalawu dugg ci seen école yi doo jàng wala déggu leen loolu ah déggu leen ñu ne dañoo interdit val ci seen école yi wala wala loolu lu muy tekki yàlla li mu ñu wax mooy dëgg walan tarda anka alyahud wala nasara ta tattabi millatahum barkaati démb ngeen gisoon ñu rey Saddam Hussein bi ñu rey Saddam après kuñ ci teg Osama Ben Laden après kuñ ci teg bi barki démb Kadhafi ñooñu ñëpp ay lan lañ ay jullit est-ce que liñ leen di condamné tey ci àdduna bi amul ay yéeféer yu nekk ci àdduna bi yu ko def yu gën a dangereux lu ñu def sax mais kenn def leen dara George Bush ñaata la ñaata la rey Irak ñaata ah arrière Sharon ñaata nit la rey Palestine Gbagbo mu ngi nii mais chrétien la kenn du ko rey gis ngeen ñaata nit la la rey ay Côte d'Ivoire mais kenn du ko rey pourtant mënoon nañu jàpp Kadhafi noonu bañ ko rey mais non jullit la jullit rey rek amul négocier yàlla li mu wax mooy dëgg mais ñun ñoo fi nekk di négocier xoolal chrétiens yi Sénégal ñaata lañ motuñ sax 3 pour 3 pour cent di imposer jullit yi nekk ci biir jullit yi ñeme am fit naan jullit bi fi muur doo fi jàng mooy ku gëm yàlla rek ku gëm yàlla doo dugg suñu école loolu kese la parce que ku muuru mooy ku gëm yàlla loolu min alaamatil iman dafa bokk ci màndarga ngëm yàlla jigéen bu solo ni yàlla bëgg ñu ne loolu kenn du ko fi def ah waaw day wane ne ñun suñu ñàkk fayda ak suñu ñàkk mat ak suñu ñàkk nekk jullit loolu kese la tey bu fekkoon ne sénégalais yi ay jullit lañ gëm nañ seen diine benn yahut wala nasaraan bu ñeme am fit di wax yenn wax yi mais xam nañ ne sénégalais yi gëmuñ dara ay tarixa lañ gëm gëmuñu lislaam tarixa lañ gëm gëmuñu lislaam waaw bu doon tarixa la allahu akbar 24 heures sëriñ bi génne décret ne dem leen ngeen màbb foofu bu doon la tarixa la su ko waa su ko gaa yi waxee 24 heures léegi nga gis gaa yi riposté nga gis nit ñi génne jaas yi génne ku nekk di wax mais maadaama l'islam la ndeysaan l'islam moom amul ku ko jooyal Sénégal El Hadji Omar yal na ko yàlla yërëm nee na ku dee Sénégal am nga ku la jooy ba mu des l'islam du ci Sénégal rek adduna bi yëpp la jullit ñi rek nga gis ñu leen di cible di rey jullit yi rek kese nga gis ñu def leen ay cible di rey jullit kese jullit kese jullit yi kese lañ topp di leen rey su ngeen jàngee année yii ñu nekk ñi ñu rey ci adduna bi yëpp ay jullit lañ te ñi leen rey ay yéeféer lañ benn jullit reyu jullit même bombe yi ngeen di dégg attentat yi ngeen dégg ay jàkkaak marché yeeg américains yi ñoo koy def ak yahudi yi jullit xam ngeen ne du ko def jullit dina ñëw ci jàkk di def attentat seet leen loolu xam ngeen ne xel nanguwul loolu ñoom ñoo koy def ñoom kese ñëw ci ay hôpital di di rey di rey ay nit ay hôpital ñu ñu feebar nga leen di rey di def ay bomb ah lii nag lu muy tekki mooy musiba bi dal jullit di tey mooy lii gis ngeen ci jamono boobu seen noon yi di leen wër di ndulli ak di leen dammate ñoom ndeysaan ñu ngi ci ñàkk fayda yoo xam ne amul bopp amul geen amul fulla yooyu yittewul sax yàlla tabaraka wa taala billahi allazi la ilaha illa huwa ay mbir yoo xam ne c'est terre à terre eggul fenn kenn du ko laaj yowmal qiyaamati fenn la eggul julli ji di ci rey seen bopp loo xam ne bàyyi farata bàyyi farata di xeex ci sunna farata lañ wax farata farata bàyyi farata di xeex ci sunna loolu mooy suñu problème gis ngeen borom bi subhanahu wa taala lan la wax yonent bi wala in atayta allazina utul kitaaba bi kulli aaya ma tabi'u qiblatak preuve boo mën a indil ahlul kitaab du ñu mën a d'accord ci yow ba topp la ci sa qibla bi abadan duñ la topp parce que ñoom dañoo am lu ñu gëm ba pare dañoo am lu ñu topp mais xoolal ñun ñun kay ñun ñoo ñàkk fayda ñun ñoo amul bopp ñoo amul geen ñooy dugg ci yu kenn xamul waaw léegi nga gis looluñ chrétiens yi ne ku muuru du jàng suñu école nga gis benn parent bu ñàkk fulla ñàkk fayda ñàkk diine dañ da doom ji ma bon bon c'est c'est la val kese hein moom mun nga dindi val bi quoi amul problème boo nekkee ci classe bi nga dindi boo wàccee nga takk c'est comme ça loolu lañ koy fañee ah et puis lan lañ fay uti lan lañ fay uti sax bañ naan leen du ngeen fi muuroo lan ngeen fay uti xanaa kuy xaaraani da fekk sa kër sa kër amuloo lekk ah loolu mooy wax ci lan lañ fay uti ab jullit lan lay uti ci ab yahud ak nasaraan lan la fay uti lan est-ce que li li ñu soxla mënuñu ko am feneen mooy wax bi mi ngi nii alquran bi ñuy wax yàlla nee na subhanahu wa taala yonent bi wala in atayta allazina utul kitab maa ngi giñ ci sama màggaay saa yoo xamante ne indil nga ahlul kitaab bi kulli aaya preuve bu mu mën a doon lay wu mu mën a doon maa tabi'u du ñu topp qiblataka sa sa qibla su boobaa nag yow it da nga am fulla wa ma anta déet yow bi taabi in ngay topp qiblatahum ñoom tamit seen qibla da nga am fulla alquran wax na bu yàgg wala antum abiduna ma abud wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma abudu lakum diinukum waliya diin ni dafa war am fulla jullit ñi ñoo amul fu la nag ñee ñu ngi ci seen li ñu nekk de ñun ñi ñoo xam ñoo xamul ci lu ñu nekk mais ñee li ñu nekk lu leer la ñoom ñu ngi ci ñun kay ñun ñooy xaaraani waaw mu ngoog ñun ñoo xamul ci lu ñu nekk ñoo xamul lu ñu gëm ñoo xam ñoo amul borom bu ñu topp ñoo amul al yonent bu ñu boole ñoo amul alxuraan bu ñu tënk waaw ku nekk lu la neex ngay def loo neex mi ngi nii moo tax gis nga jullit yi nekk cible ci àdduna bi cible di rey rek te te xam nga lu doy waar mooy dëkk bu ñu dugg bala ñu fay génn tey li bi bu ñu la waxoon li fa dee ci nit bu ñu la waxoon liñ fa yàq sa yaram day daw xoolal Irak kazalik un million musulman la ñu rey Irak un million te loolu études yi njëkk yu avant avant 2011 la de études yi mujj yi boobaak léegi ñaata la xoolal Afghanistan ñaata te li nit ñi xamul mooy ñooñu ñuy rey yépp kenn du ci yahut kenn du nasaraan yépp jullit lañ xam nga jullit yi loolu lañ bàyyiwul xel léeg-léeg nga xool gis ñu ne la benn attentat am na 17 personnes dee nañ 17 yooyu nga dégg dee nañ wala 20 yooyu wala 40 yooyu kenn du ci kat nasaraan ñëpp ay jullit lañ ñëpp ay jullit lañ ba kañ nii rek la ñuy continuer ci àddina bi France Angleterre Amérique di allié rek di dóor nii rek nii rek jullit yi ñoom seen yoon tëg rek di seetaan ndeysaan ba kañ ba kañ te xool leen aaya bi li yàlla wax yonent bi maadaama ñoom nee nañ duñ topp sa xibla ak preuve boo leen mën a indil yow tamit wama anta déet yow bi taabiin ngay topp xibla taxum seen xibla comme ñoom nee nañ duñ la topp du wala waroo leen topp yàlla ne wama baaduhum déet leen ci ñoom bi taabiin ñuy topp xiblata baad xibla ñeneen ñi aaya bi yemul foofu de mu ne wala in giñ naa ci sama màggaay wala in tabaata soo toppee ahwaahum seen bànneex min baadi ginnaaw maa jaaka ba mu la dikkalee min al ilmi ci xam-xam innaka yow isan kon la min azalimina di nga bokk ci tooñkat yi kan la yàlla di waxal ah yàlla jaakaar ak Muhammad ne ko ginnaaw ba dëgg leeree ñëw ci yow soo toppee gaa yi bàyyi dëgg bi yow tooñkat nga innaka isan la min azalimin kan la ñuy waxal Muhammad waaw kon ñun nag est-ce que dëgg leerul tey loo xam ne jullit yi war nañoo jàpp ci li ñu li ñu nekk bàyyi misaal rek laay joxe Sénégal tey constitution bi lan la ah du laïcité de confi constitution nasaraan yi la du laïcité laïcité mooy ku nekk ñu bàyyi li nga gëm li nga gëm du noonu du loolu mooy laïcité mais constitution bi constitution nasaraan yi la ban jour la ñuy feetu Sénégal ban jour lañ du liggéey dimanche est-ce que ñan ñooy ñan ñoo ko moom ah waaw ban calendrier lañu lañu lañu lañu lañu la ñu topp ban làkk lañ jël kon kay ñun constitution nasaraan lañ jël du constitution sax lay laïcité soo demee ci loi yi ay sartak ay nangam ak tubaab yu yoo xam ne waxuma sax tubaabu yoo xam ne gëmoon nañ nasaraan waaye ay tubaabu franc-maçon li ñuy wax lañu lañu lañ ñuy àtte tey suñu constitution réew te gis nga jaral na ni ay nit dee le 23 juin gis nga ay nit taxaw fi yor ay bolde yor ay xeer naan bu suñu constitution bu ko kenn laal te jaral na ay nit dee de mais ñun suñu alxuraan bi jaraluñ dara fekkoon ne alxuraan bi gëm nañ ko keroog bi nasaraan yi chrétiens yi taxaw fii naan ku muur du jàngi seen école yi ca suba sa kon seen école yëpp la ñuy taal ba ëllëgee dootuñu ko fi waxati eh wala ñun gëmuñ dara moo tax it ñu mel nii te lii am ci Sénégal moom adduna bi partout dans le monde moo am partout loolu moo tax ngeen gis li ngeen di gis du hasard rek ku ñu bëgg a rey addina bi rek daal lay takkal garaat da takkal la benn ticket bu ñu lay xàmmee après rey la non du ad du hasard ay cible la déglu leen fii trois mois di ngeen dégg keneen ku américain yi wax ne kii dañ dañ ko war a rey déglu leen rek fii trois mois di ngeen dégg keneen kuñ ne kii dañ ko war a rey moom la ñuy wër te duñ ko bàyyi lu dul ñu rey ko duñ ko bàyyi lu ñu rey ko baggoo keroog bi ñu ko génnee ci xunt mi mu à genou mënoon nañ ko dóor bal lu tax dóoruñu ko bal ah lu tax parce que am na ndey am na baay waaye jullit ñoom amuñu ndey amuñu baay kis ki yàgg na koo wax mu ne rey benn nit ku dul jullit crime la kenn du ko baale mais rey cent musulman benn masala la boo xam ne bon dañ koy xoolaat masala moo xam ne dañ koy xool mais rey kenn ku dul jullit xoolal Israël fan yi yéen a ngi dégg Palestine benn soldaaru yahud lañ jàppoon ah ñu ne nañ ko changé ñaata personne la ñuy joxe pour ñu changé yahud boobu xoolal benn nit le la jullit yi ne leen jox leen ñu looloog trois cent cinq cent personnes ñu jox leen waa ji ñu kontaan benn nit allahu akbar billahi jullit yi daganatul sax ñu nekk ci kaw suuf ndax ñàkk guñ ñàkk valeur benn yahud benn yahud laa benn ñu ne dañ koy libéré ñu ne ñoom danañu joxe cinq cent personnes pour benn nit benn nit cinq cent personnes benn nit kon ñun nga xam ne amatuñu valeur lan mooy lan mooy valeur u jullit dundu lislaam tey fekkee dañu yaakaar ne suñu julli yi ñuy dem ni ay nangam nangam yii nii lii du dara du tus parce que julli yi sax sellul li ci ëpp ibaada yi li ci ëpp ay ngis sal la dara wéru ci di wax rek foo toog tam ay nit ay dëmm loolu kese lañ nekkee fii mais amul leneen moo tax diine bi mel nii loolu kese kese la fi àdduna bi nekkee julli di loolu la fi nekkee kese mais ibaadaat yi amatul sax ixlaas amatul sax ruux boo xam ne dëgg-dëgg ñi koy def dëgg-dëgg am na lu mbir mi lu mu leen di jural ci seen xol dëgg-dëgg am na benn benn taasir bu muy jeexital wallahi amatul loolu moo tax ñu mel nii nu mel dañuy def affaire yi nii rek moom ci kaw quoi geste yi ci kaw ruko sujjóot kii xiif bañ a lekk koor bi dem màkk dem tourisme balaa ngeen doon xam loolu ngeen dem màkk dem nii ñëwaat affaire yëpp léegi pour nii ci kaw rek la amatul benn njëriñ loolu allah subhanahu wa taala daf koy dàq ci ñun jullit yi li leen war tey mooy ñu xam ne kenn benn noonu lañ am mooy yahudi ak nasaraan yi te fekk loolu leerul ci ñun nii la ñuy continuer di nekk borom bi subhanahu wa taala mu ne wa ma baaduhum déet lenn ci ñoom bi taabiin ñuy topp qiblata baadin qibla ñeneen ñi yéen du ngeen topp seen qibla ñoom duñu topp seen qibla loolu na leer ginnaaw loolu nag am na wala in atayta wala in ittabaata wallahi saa yoo toppee ahwaahum seen bànneex gis nga ñoom amuñu diine bu ñu amoon diine yàlla day wax wala in ittabaata diinahum waaye lan la wax yonent bi ahwaahum seen bànneex ñoom ay bànneex lañ yor lu leen neex rek ñu daal dugal ci diine bi mais amuñu xibla amuñu diine yewul ak nasaraan amuñu diine diine bi fecc ci la naan sax lépp ci la njaaloo ci la déglu leen rek semaine yi di ngeen dégg fii fii chaque jour ngeen dégg musique dégg soirée yi te nee na njaamukaay yàlla la chaque jour dañuy tëgg ba fii kenn du mun a jaamu yàlla kenn du mun julli benn waay tuub na fii fii ci suñu jumaa ji bàyyi ko ci ñoom bi ñu ko nee lan moo la neex ci lislaam ba nga dugg ci mu ne ñaari mbir laa seetlu ñu ne lan mu ne yéen seen jigéen ñi dañuy sol col gu jot ñun fa ma fa ma jógee duñ sol lu baax ñu ne ko ñaareel mu ne yéen seen diine dafay tàqale jigéen ak góor ñun boo demee ci biir jaamukaay yàlla yi ñëpp ay jaxasoo xoolal nasaraan boobu tuub sax moo tane ay jullit ci ay xool yi ñuy xool séparé yu ñuy séparé billahi allazi la ilaha illa huwa am na ñoo xam ne jullit ñi de ñooñu sax seetlu yooyu sax ñoom xamuñu ko seen yoon nekk seen diine parce que waaw jullit jullitu tur kese la jullitu tur jullitu tur inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim la muhtadin yàlla ne subhanahu wa taala walay ni tabaata soo toppee ahwaahum seen bànneex min baadi ginnaaw maa jaaka bu mu la dikkalee min al ilmi ci xam-xam ginnaaw bala yàlla joxe xam-xam bu leer ne lislaam mooy dëgg jublu ci kaaba gi mooy dëgg nga bàyyi ko fi dem topp seen bànneex innaka yow muhammad isan kon ci jamono jooju nga defee loolu la min az-zalimina bokk nga ci tooñkat yi allahu akbar yàlla muhammad lay waxal di ko adresse ay baat naan ko li ma indi boo ko boo ci jàppul tooñkat nga kon ñun fu ñu jëm borom bi subhanahu wa taala mu ne allazina ñi nga xam ne aataynaahum indi woon naa leen jox naa leen alkitaaba téere te mooy tawraat wala injil ñi nga xam ne joxoon naa leen téere mu leer nañ yaarifuunahu xam nañ muhammad kama yaarifuna comme ni ñu xamee abnaahum seeni doom ah gis nga li ñu xamee muhammad alayhi salaatu wasalaam bi ñu xamee seen doom yi ne ñoom ñoo leen jur la ñu xamee muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax jàng nañ ko ci tawraat jàng nañ ko ci injil bal sax am na ci ñoom ñoo xam ne muhammad la ñu gën a xam ak seen doom ndax kenn ci ñoom nee na man de wax dëgg yàlla xam naa moom muhammad melokaan yi la ko yàlla jox waaye sama doom ji moom wóoruma ndax maa ko jur ndax sama jabar moo ma ne yaa ko jur rek ma ne maa ko jur te loolu moo wéra ku mu mën a doon ci ñun fii da ngay am yaakaar rek sa jabar dafa maandu dafa ragal yàlla ci yow la yem doom ji mu jur yaa ko jur kan mu la ne demul marché benn waay sëgg ci mu jële fa ëmb ku loo ci xam kan moo la ne génnoo liggéey yi keneen ñëw loo ci xam da ngay am yaakaar rek soxna si ma am am naa ci moom confiance ku wóor la ku baax la maa ngi moom ñu ngi sëy ci man la yem bal nag muhammad alayhi salaatu wasalaam ñoom dañ koo jàng seen téere yi yàlla jox koy melokaan ne nii ak nii la mel ñu xam ko moo tax yàlla mu ne yaarifunahu xam nañ ko kama yaarifuna abnaahum ni ñu xamee seen doom yi wa inna fariqan waaye am na benn kuréel minhum ci ñoom la yaktumuna dañuy nëbb alxaqu dëgg te wahum ñoom jamono jooju ñuy di nëbb dëgg yaalamuuna xam nañ ne ñu ngi nëbb dëgg gis ngeen maanaam chaque jour du ñu deñ di wax ne dara alagul jullit yi tey lu ñu sori alquran loolu rek moo ñu alag billahi wallahi taala dara alaguñu laa wax àdduna nar ñoo sànk alaxira lu dul sori gi ñu sori téere yàlla bi lii mooy sunu mooy moo ñuy leeralal yoon wi alquran mooy leeral yoon moo ñuy leeralal alquran lan moo defaroon saxaaba yi lan alquran alquran moo baaxaloon yonent yi moo baaxal saxaaba yi moo baaxaloon génération bi ci topp loolu dong moo ñuy baaxal waaye bu ñu ko bàyyee topp leneen di négocier fii di nangam nangam dugg ci yee kert kert fii xam nga xeet bi fu muy mujj mooy nii rek lii yi ngeen gis nii nii dañuy yàpp ay jullit ci àddina bi di leen rey jullit ñi duñ ko yëgal sax seen yaram bal sax jullit ñi dañuy ciblé di kontaan bu ñu reyee kenn ci seen mbokk waaw bu ñu reyee kenn ci seen mbokk dañuy kontaan diw dee na waaw noppalu nañ loolu mooy sunu problème tey walan yàlla jubal sunu borom mu ne wa inna fariqan am na benn kuréel minhum ci ñoom yahud ak nasaraan la yaktumuuna al xaq dañuy nëbbu dëgg bëgguñu nit ñi nekk ci dëgg waaw waaw loolu lii buñ ko yàlla waxul sax war na ñun war nañ ko xam buñ yàlla waxul ne yahud yi ak nasaraan yi dañuy nëbb dëgg ñun war nañu xam ne yahud ak nasaraan dañuy nëbb dëgg waaw waaye jullit ñi la dëgg intéressé wul bañ leen di nëbb dëgg bi bu la waa ji nëbbee dëgg jógal yow nga wëri dëgg gi jógal na la dëgg intéressé mais ñun dëgg moo ñu intéressé wul tey dëgg intéressé wuñ kenn ku nekk ci ñun bon li la ñor mooy li nga nekk ak sa bànneexi bakkan fi mu la yóbbu rek nga orienté wu foofu borom bi nee na jamono jooju ñoom ñuy dëgg ñuy nëbb dëgg waxum ñoom yàlla mun a xam nañ ne ñu ngi nëbb dëgg waaye maa ngi lay wax yow jullit bi alxaqu dëgg min rabbika mi ngi bàyyi ko ci sa borom dëgg daal mooy li bàyyi ko ci sa borom aaya bi boo ko déggee lan ngay dégg ci biti dëgg mi ngi bàyyi ko ci sa borom kon loo ciy dégg mooy lépp lu bàyyi ko ci sa borom lan la caxaan la alxaqu dëgg mu ne min rabbik mooy lu bàyyi ko ci sa borom rek leneen lu bàyyee koowal ci sa borom lu mu mën a doon ci système dund ci jaamu yàlla du dëgg te yow dëgg nga war a moo tax nga war a jóg alxaqu dëgg min rabbik xam nga la la teg ci aaya bi li ci teg mu ne falaa takunanna min al mumtarin bul nekk ci sikki sàkk falaa takunanna bul bokk bul nekk mukk min al mumtarina ci way sikki sàkk yi ñiy déngi déngi naan waaw mbir mi dëgg la wala du dëgg lii nangam la wala du nangam ah yaakaar naa am na ñoo xam ne dëgg mooy bëri mbooloo ñenn ñi ci ñun bu ñu gisee ay njaganjaay jaar nii jëm benn place rek ñu ne lii dëgg la ndax nit ñi bari nañ torop yaakaar naa ne jumaa ji ñu nekk ak stade bi ban moo ëpp nit ñoom ñoo nekk ci dëgg kon yéen ci caaxaan ngeen nekk kon jóg leen ngeen dem du affaire du affaire bëri mbooloo mooy dëgg déedéet mbir mi du ci mbooloo de alxaqu min rabbika dëgg mooy li bàyyi ko ci sa borom dëgg mooy li bàyyi ko ci sa borom yàlla jox ko jox ko yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ñëw indil ñu ko loolu mooy dëgg te mooy diine lislaam lu dul diine lislaam lu dul sunna yonent yàlla muhammad alayhi salatu salaam loolu ay caaxaan la loolu fola moo tax yàlla subhanahu wa taala wax ci début aaya bi wala ini tabaata ahwaahum maa ngi giñ ne boo toppee seen bànneex yi ñoom ay bànneex lañ yor mais yoruñu diine kon ixwatal iman dafa jot jot na de jot na tey ci Sénégal ñu xoolaat suñu bopp waaye jot na tey ci alamul islam yi ñu xoolaat suñu bopp jot na de jot na jot na ñu xool suñu bopp jéem a def suñu sàppe benn jéem a góorgóorlu suñu diine xam ne rawukaay amul lu dul ñu nekk ci ginnaaw yàllaa ko yonent waaw lii ñuy gis ci àdduna bi yëpp njàng la pour ñun njàng la pour ñun mais maa la saf jullit ñi dars bu dem rek duñ ci bàyyi xel mbir yi day dem rek barki démb lañ jàpp Saddam pendre ko bisub tabaski jullit ñi di rey seen xar ñu ne leen ni ñun dañuy dañ leen di indil benn jullit tabaskee ko ñu jóge fa gis ngeen Usaama nuñ ko def ca lañ wax rey ko yemuñ ci lakk ko yemuñ ci sànni ko biir géej xala lool rek rey nit doyul mais nit kay buñ ko reyee jeex na mais pour mettital lakk ko doyul ñu sànni ko biir géej xoolal kii démb nit ku blessé koo xam ne blessé na xam nañ ne mënatul dara ah ñu ñëw tas bopp bi Cheikh Yacine fàttewu leen nu ko israéliens yi def Cheikh Yacine màgget mu am juróom-ñeent fukki at toog ci puus-puus nga xam ne dafa feebar mënatul sa amatul sax ay tànk mënatul sax wax ay nit ñoo koy yóbbu di ko indiwaat ci puus-puus waxuma la bal waxuma la yat mais obi lañ ko dóor mu tasaaroo obi hélicoptère moo ko rey julli fajar mu génn ci jàkk di ñibbi këram hélicoptère doo gis mukk ab yéeféer ci àdduna bi ñu reyee ko noonu amul fenn amul fenn laa wax jullit rek jullit rek la ñuy rey rey yu ñaaw yi rey yu bon yi dal nañ yàlla jubal incha allah mbokk yi loolu moo doon dars tey ñu ñaan subhanahu wa taala suñu borom moo ñu neen wërsëgal ñu topp moo ñu neen wërsëgal ñu sori ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu